Walf TV la télé des sans voix mbokkee xarit yi ñi ngi amaat mbégte di leen dalal ci seen émission balance te jii nag ñu fas yéene dalal suñu plateau maître El Hadj Amadou Sall nekk avocat à la cour ancien ministre de la justice ancien ministre conseil du président de la république ministre d'État ancien porte-parole du PDS membre du courant libéral suqali euh, soppi Euh, moom nag mi ngi inscrire au barreau en 1982 donc 39 ans de bar muy euh, fanweeri at ak juróom-ñeent yoo xam ni mi ngi sol robu avocat bi di taxawu euh, nit ñi nga xamante ni ñi ngi am jafe-jafe ak yoon moo xam ci biir réew mi ak ci wàllum bitim réew. bu dee procès yu mag yi nga xamante ne ràññeeku nañ ci mën nañ ci tudd Cheikh Diop CNTS ci ay jamono mën nañ ci tudd procès ma Thiok Mademba Sok ak coowal Senelec bi ci ay jamonoom waaye également Abdoulaye Wade en 1988. bu dee ci suñu jamono yu récente yi mën nañ jàpp procès Karim Wade pour enrichissement illicite 2015 mën nañ ci jàpp également affaire Khalifa Ababacar Sall donc ci ab tënk rek loolee mooy jaar-jaaru ki nga xamante ni moom lañ fiy dalal tey muy euh, maître El Hadj Amadou Sall avocat ancien ministre de la justice ex garde des Sceaux ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau Balance. maa ngi lay merci beaucoup maa ngi lay nuyu yow di nuyu sa naataangoo yi nga fi nekkal. Mm-hmm. ak di nuyu waa Walfadjri yëpp ak ñi nga xam ne ne bii. ñoom ñoo ñuy déglu ni nga ko waxee wal fajiri la voix des sans voix saa yu ma fi ñëwee rek mënuma ci dara yàlla moo ko def euh, sama xel dina dem fu sori dina dem ci Sidi may fàttali loolu mënuma ko fa fasuma ko woon yéene wax mais daf may bett day day ñëw c'est spontané euh, am na ay jamono defe naa quelques jours avant muy wuyu boromam daf fekk man ak moom ñu wax wax bu sori wax lu yàgg ce qui fekk bi mu ñëwee aussi euh, mu bettoon ma lool vraiment ma di ko ñaanal moom tamit yàlla mi nga xam moo yore lépp yàlla na yàlla atte ko ci atte bi gën a rafet atte ko ak yërmande amiin yàlla na yàlla nangu ñaar alors euh, yaa ngi inscrire au barreau maa ngi koy wax léegi ci atum 1982 donc 39 ans de bar c'est toute une vie hein ça fait quoi waaw 39 ans xam nga bëgg a yàgg ça fait presque 40 ans su ma demee léegi tribunal damay seetlu lu bëri ñiy atte mën naa wax ne samay doom lañu samay moroomu doom lañu ndax ñi ci ëpp tey ci ñuy atte bi may dugg di solu euh, wa ilaa juddu wu ñu woon wa ilaa ci lu ñuy soogu juddu euh, daf ma boole rek ci mag ñi am na jamono nag nit su la yàlla boolee ci benn métier nga def fanweeri at la ca topp daana ko ñeent fukki at euh, mën nga boole sa bopp ci mag ñi soo boolewul sa bopp ci mag it ñu boole la ci mag ñi Euh, kon euh, loolu day wane li gàddu ci li gàll ci sama ndodd bëri na responsabilité la aussi ce n'est que de la responsabilité ok ce n'est de la responsabilité ak suñu gën ñu fas yéene aborder wax li nga xamante ni